bismillahi rahmaani rahim ñu ngi ci garabug tuuba ci xaaju juróom ñaareel bi ci ñeen fukk ak juróom benn ci leen toll sëriñ bi xaada lahoo allahu maxtaara lahoo nee na téere bi nahjul haqiqa fi hatki sitril haqiqa la ko tudde yoonu dëgg wéy leeral mbirum tudd ak lu ci aju maa ngi sant sunu boroom bi nga xam ni kenn la jurul kenn kenn juru ko tey julli ci yonente bi sallallahu taala alayhi wa alihi wa sahbi moom mi sopp ci képp ku am doom am tudd ak i ñoñam ak i saxaabaam ak képp ku koy roy ginnaaw loolu lii ay way la yoo xam ni day leeral mbirum tudd ak lu ci aju am tudd mooy lañuy rey ci bisub juróom ñaareelu doom ja judd benn gàtt ngay rendi boo xam ni am xar lay doon walla béy day am menn at bu dee xar bu dee béy day am at ba tàbbi ci atum ñaareelam du doon lu pat du doon lu tawat du doon luy soox soox gu bés noonu mu ñëwee ci arisaala boo ko mënee mën ngaa rendi ñaari gàtt itam ngir li ñuy nettali al imaamu malik radiallahu taala anhu nee am na doon na am na doom juma doon tudd dama rendi benn gàtt ci guddi gi woo samay mbokk ak ñeneen rendi gàttu tudd ba jox ca samay dëkkandoo ñu lekk ñu lekk ni ñu lekkee moo tax ku ko man bu la neexee def loolu gàtt boobu ca bisub juróom ñaareel ba ca bëccëgal lañu koy rey bu fekkee doom dadu dund na ba ca bis booba waaye deefu ko tudd bu dundul ba ca bis booba noonu la ko imaamu malik waxe radiallahu taala anhu lañu sopp nag mooy mu nekk yoor yoor ba tisbaar dagan na itam ginnaaw tisbaar ba jant bi so waaye danañ ko sib boo koy def itam danga nga koo war def ngir jaamu yàlla subhanahu wa taala dundal sunna si yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbi su ko defee borom xam-xam yi am nañu ak wuute ci atte bi am na ñu wax ni sunna la waaye dëgërul lool am na ñu wax ni warteef la am na ñu wax ni dañ koo sopp am na ñu wax ni daa dagan li gën a wóor ci wax yooyu mooy dañu koo sopp ku ñuy wax abul mawaddati loolu la leeral radiallahu taala anhu waroom risaala nee na suñu sopp la ñi koy leeral am na ko wax ni li mu ci jublu sunna la ngir wuuteeg ñiy wax ni daa war li tax mu te lu ñu sopp day leeral ak wuuteem ak ñiy wax ni daa dagan wala daa bëgg a wax ni benn muy sunna wala muy lu ñu sopp wala daa bëgg a wax ni aw yoon la wu ñu sopp fu mu soq ko nag mooy lii ahmad radiallahu taala anhu nettali mu jugee ci yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama nee na képp ku juddu dañu koy tayle ca am tuddam daldi wax ni maanaam hadis bi mooy doom ju nekk du mën a ràmm ñaari way juram li feeg rend li ñu ko am tudd am na ñu wax ni jublu gi mooy doom ju nekk day mel ni ku ñu tënk ci def yu baax yi ak yiw yi ak dolleeku li feeg rend li ñu ko am tudd am na ñu wax ni jublu gi mooy doom ju nekk ak muccam ci mbooleem gàkk yi mi ngi ci gàttub tuddam su ko defee nu xam nu li tàmbalee yoor yoor ba tisbaar mooy waxtu wi ñu sopp li tàmbalee tisbaar ba jant so mooy waxtu wi ñu sib naka noonu ginnaaw bu fajar xaree ba jant bi génn bu dee guddi gi day xaram boo ci rendee itam du doy ibnul maajisoon nee na bu ko rendee njëkk jant bi di génn dana doy am na ñoo xam ni loolu lañu ñu sukkandikoo ashurgaani yu o nee na li sopp mi ngi amee ci bu jant bi génnee doonte naafila daganagul wallahu taala alam su ko defee doom ju nekk daa war a am am tuddum boppam moo xam góor la wala jigéen bu dee ñaari doom ñaari gàtt lay doon wuuteeg ñi wax ni bu dee jigéen benn gàtt lañu koy tudde bu dee góor ñaari gàtt ko am ay seex kenn ku nekk da koy wutal tuddu koy boppam sopp nañu ku wat xale ba ca bisub tudd ba te mu njëkk rend ga te saraxe lu tolloog moom kawar ga ci wurus wala xaalis a tirmisi yu ci téeréem bi ni sayiduna aliyu karramallahu wajhahu nee na yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi moo tudd sayiduna alhasan ci am kuy ni Fatima watal bopp bi te saraxeelu tolloog moom kawar gi ci ab xaalis ba mu ko defee mu tolloog ab dërëm wala lu ko yeesu ku ko man kon da ngay saraxe loolu door a rendi ba tey sopp nañu bu ñuy joxe turwa mu doon ci bisub juróom ñaareel ba bu fekkee dana amum tuddu bu fekkee tudd ma amul manees naa joxe turwa njëkk loolu bu fekkee daa faatu njëkk ñuy rendi am na ñu wax ni manees na ko joxu tur am na ñu wax ni deesu ko def la gën a wóor mooy manees na ko ndax ndax doom la ñu yaakaar muy ram bu fekkee dañoo joxewul tur wi ba ren di mu door a faatu ñépp maase nañu wax ni dees na ko tudde aw tur ku andi waaliwul bakkan maase nañu wax ni deesu ko wutal aw tur ku andi bakkan daa faatu la gëna a siiw moo di deesu ko wutal aw tur sopp nañu itam gàtt boobee ku ca lekk sarax ca ay dëkkandoom ak i waa këram alfaakihani yu nee na loolu moo gàttub tabaski ñoo ci yam amul benn tay daytal bu ñuy wax ca la ngay saraxe ak la ngay lekk boo rendee yal dara ca ndawal ga naka noonu boo toggee ba noppi ca nga jëfandiku ca loolu sopp nañ ko loo ci bàyyi bàyyi nga li ñu sopp naka noonu nanga ca leele sim nañu di dajale aw nit ngir moom mu mel ni aw xew ngir ragal lu mel ni ëpplante ak ndamu dañoo war a togg lañuy togg sarax ca dëkkandoo ya ak faqiiri te lekk ca mënees na caa dindi dara itam lu mel ni rendi baneen gàtt bu dul bopp tudd ba woo ca aw nit loolu mën naa nekk ngir li nu nettali ci ginnaaw mu jugee ci al imaamul malik radiallahu taala anhu lu mel ni di ci jaay dara daa xaraam moo xam ak ndawal la wala ab der kii fees itam loo ko cee jox na doon sarax naka noonu jigéen ji doon dooj jigéen ji doon dooñ itam loo ko cee jox na doon ab sarax te bañ doon lu mel ni ak fay boroom maddaxal nee na am na lu bari lool ci jamono ji te warees na koy moytu lool mooy indi gàttu tudd naan day jox der bi ak bopp bi ak fàllare ji ki ko doon defar loolu xaraam na ba tey nee na waree suta def ko mu mel ni aw xew di ci woo nit ñi ndax saxaaba ya daawuñu ko def radiallahu taala anhum imaamu malik radiallahu taala anhu mas nañu ko laaj ni ko ndax manees na caa defar aw ñam di ci woo nit ñi mu mel ni ku ko taamuwul ni day ndu xewu kuy am soxna dañoo war a togg joxe te saraxe te jëfandiku gàttub tudd nag am na ay njariñ bokk na ci topp sunna si yonante bi sallallahu taala alay bi ali wa sabi wasalama ak neenal biddaa ak wattu xale ba ci mbooleem gàkk yi noonu mu ñëwee ci hadis bi te def sunna su bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi ci la yiw yëpp nekk ak barke safaanu biddaa am na ku ñuy nettali di wax ni ay àndandoom dañu daan ñëw këram bu ñu duggee gis wurus wi ak xaalis bi tasaaroo te kenn du ko laal ay doomam di dem ak a ñëw ñu ni ko yow sunu sang lii réeral alalla mu ni leen déedéet mi ngi ci kaaraange ñu ni ko anamu mu ni leen asakaam génn na te loolu moo koy sàmm naka noonu gàttug tuddu day wattu doom ji moo tax képp ku am xel war nay faylu bu war nay farlu bu baax ci di ko def ndax boole na wattu xale bi ak wattu alal ji te boo deful alal ji ngay def gàtt bi fawu nga def ko ci yeneen yoo xam ni ay bidaa doon yoo xam ni mën naa waral ay gàkk ci xale bi dana waral tuyaaba ju bari moom ab gàt lay dana waral moom am tudd dana waral tuyaaba ju bari ngir topp sunna si yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa wasalam wa sallam rawante naag jamono jii nu nekk nga xam ni topp sunna da cee néew boo ci toppee sunna sa tuyaaba mooy gën a bari ndax yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi nee na képp ku dundal benn sunna ci samay sunna ginnaaw ba mu deexee mel na ni dundal na ma te képp ku ma dundal ànd man àjjana maa ngi sant yàlla subhanahu wa foofu la téere bi yam ci ndimbalul yàlla subhanahu wa taala na dolli yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ñoñam ak i saabaam radiyallahu taala anhum lool mi ngi ci xatu téeméer ak juróom fukk ak juróom ci diwaanu diyaafatul quddus wallahu alam Sëriñ Tuubaa xaada lahu wallahu maxtaara bi mu jullee ci yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi ba noppi lii la wax yow boroom bàkkaari jugal julli ñeenti rakka ngir yàlla subhanahu wa rakka rakka bu ci nekk nga jàng fatiha aku boo jàngee fatiha aku saar ba noppi waxal subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa allahu wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billahi alalii alazim na nga ko wax fukki yoon ak juróom boo rukkoo wax ko fukki yoon boo suggee ci rukkoo bi wax ko fukki yoon boo sujoodee wax ko fukki yoon boo suggee ci sujood bi wax ko fukki yoon boo sujoodee wax ko fukki yoon boo suggee ci sujjoot bi wax ko fukki yoon loolu boo ko xoolee rakka bu nekk juróom ñaar fukk la cay doon ak juróom nii nga koy def ci ñeenti rakka yépp boo ko mënee di ko saxal dee ko saxal bis bu set wala ajuma ju nekk benn yoon wala weer wu nekk benn yoon wala at mu nekk benn yoon wala benn yoon ci seg dund rakka bu njëkk bi ginnaaw fatiha suratul ala nga ciy jàng bu ñaareel ba suuratu zilzali ginnaaw fatiha bu ba kaafiroon ginnaaw fatiha bu ba qul huwa allahu ahad ginnaaw fatiha boo ba noppi jàng ñaan gi door a salmal mi ngi nii allahumma inniya as'aluka tawfiqa ahlil huda wa amala ahlil yaqin wa munasahata ahli tawbati وعزم أهل الخشية وطلب أهل الرغبة وتعبد أهل الورع وعرفان أهل العلم حتى أخافك مخافة تعجزني بها عن معاشك وحتى أعمل بطاعتك عملا أستحق به رداك وحتى أناصحك بالتوبة خوفا منك وحتى أخلص لك النصيحة حبا لك wa hatta atawakkala alayka fi l umuri kulliha husna zannin bika subhana xaaliqil nuur rabbana atmim lana nuurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir bi rahmatika ya arhamar rahimin boo ko jullee nii ngir sàkku tuyaaba ak dëggal li ñu nettali sunu borom dana la jéggal sa bàkkaar yépp yu jiitu ak yu mujj yu ndaw ak yu mag yu yees ak yu màggat yi nga tey ak yi nga teyul yu nëbbu ak yi feeñ kon beel julli te am lenn looy werante mi ngi ci xatu fukk ak juróom ñett ci diiwaanu majmau nuurayni fi fawaidi daarayni li ahmad al xadim xaala lahu llahu xaada lahu llahu maxtaara lahu wallahu alam sëriñ bi xaada lahu llahu maxtaara lahu bi mu jullee ci yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama mi ngi ñaan julli doon loo xam ni sunu boroom da ciy def bayit yi muy bëgg a def ñuy lu am njariñ ci adduna ak alaxira ci moom ak ci képp ku leen am wala mu jëf ci dara ci reer jay yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama te bokk ci jëf yi de sawwu dooni yiw ba waxe waxee loolu la tàmbali di wax te nee yàlla kese la jublu yow mi wut ngërëmul yàlla subhanahu wa taala del sonn ci alxuraan moo gën a yay maa ngi lay leeral boo bëggee wàcce alxuraan ci subux wala ñetti fan wala ñeenti fan ni ngay def bu dee subux da ngay tàmbali bisub dibéer jàng ñetti saari te mooy nga tàmbalee suratul baqara ba ci mujjug suratul nisaa bisub altine bi nga xam ne ci la yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbi wa sallama gane adduna nga jàng juróomi saar te mooy nga tàmbalee suuratul ca mujj suuratu tawba bisub talaata nga jàng juróom ñaari saar te mooy nga tàmbalee suuratu yunus ba ca mujj suuratu naxli bisub àllarba nga jàng juróom-ñeenti saar te mooy nga tàmbalee suuratul isra'i ba ca mujj suuratu furqaan bisub alxamis nga jàng fukki saar ak benn te mooy nga tàmmulee suratu shu'ara ba ca mujjug suratu yasin bisub ajjuma nga jàng fukki saar ak ñett te mooy nga tàmmulee suratu yaqatiin ba ca mujjug suratul xujuraat bisub gaaw nga jàng saar yu gàtt te mooy nga tàmmulee suratul majid ba ci mujjug suratul naas boo bëggee wàcc alxuraan ci ñetti fan laa lay leer da ngay tàmmulee sóoratu baqara ba ca maa yunfiquun ci sóoratu tawba bu ëllëgee nga tàmmulee innama sabilu ba ca maa tasnaun bu ëllëgee nga tàmmulee wala tujaadiloo ba ca minal jinnati wa naas boo bëggee wàcc alxuraan ci ñeenti fan diglu ma te kaweel sa hitte te not sa bakkan da ngay tàmbulee sooratul baqara ba ca mujjug sooratul an'am bu ëllëgee nga tàmbalee sooratul araaf ba ca mujjug sooratul bu ëllëgee nga tàmbalee sooratu maryama ba ca mujjug sooratu fatir bu ëllëgee nga tàmbalee sooratu yasi ba ca mujjug sooratu naas maa ngi ñaan sunu boroom mu dolli yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama tedd nga aku góolu moom minu andil wax ji aki ñoñam aki sahabaam sunu boroom dolli ko tedd moom mi nga xam ni ak dundam lépp lu ñu sant la te wax na ci alquran loo xam ni saafara na ma te soril ma yeddanga subhana rabbika rabbil xisati ama yasifun wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin loolu mi ngi ci xatu juróom fukk ci diiwaanu majmaun nuurayni wallahu alam sëriñ bi xaada lahoo law maxtaar lahoo bi mu sàkkoo ndimbal ci baroomam ba noppi lii la wax maa ngi sant sunu boroom bi digle julli tey julli ci yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ak ak i sahabaam képp kuy farlu di leen roy ginnaaw loolu maa ngi ñaan sunu boroom mu dimbali ni ci ak njub na ngeen xam ri na ngeen xam ni ñaari rakkaay kuy topp sunna si yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi gën ñaari junni rakkaay kuy topp bidaa topp sunna si yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbi mooy yoonu ajjana topp biddaay mooy yoonu sawara loolu moo waral ma jug ngir leeral loo xam ni sunna si bi la sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa salama ci naafilay guddi yi ak bëccëg yi maa ngi ko tànqe ci géejug cheikh abdul xaadir jaylaaniyu radiallahu taala anhu fukki dog laa ko def ak ñeent julli guddi lay jiital ci julli bëcce gi safinatul aman lil xaifina lujjajan niiraan laa ko tudde gaalu kóodute ci képp ku ragal tabbi sawara dog bu njëkk bi ci julli guddig dibeer maa ngi lay xamal ni bu waxee guddig dibeer mooy guddi gi jeetu dibeer ndax guddi yi ñoo njëkk am bëcce gi wallahu aclam nii la ñëwee ci téereb cheikh abdul xaadir al jiiliyu radiallahu taala bi ñuy wax alxunya anas ubnu malik radiallahu taala anhu nee na dégg ci yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi mu ni ku julli guddig di ñaar fukki rakka bu ci nekk nga jàng ci fatiha benn yoon ak xulu walaaw axat juróom fukki yoon ak fàllaxi ak naasi lu ci nekk benn yoon boo noppee wax astaghfirullah al asim téeméeri yoon ak astaghfirullah alazim li wa li walidayya temer yon julli ci yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama temer yon ak la hawla wala quwwata illa billahi alali azim te wax lii ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna adama safwatullahi wa fitratuh wa ibrahim khalilullahi hasa wa jalla wa musa kalimullahi taala wa xiisa ruuxullahi subhanahu wa muhammadan habibullahi azza wa sunu boroom dana ko bindal ci tuyaaba lu toll ni limum ñi wax ni yàlla am na doom ak limum ñi dul wax loolu te bu ëllëgee dana bokk ci ñi am kóolute te sunu borom dana ko warlul ak tàbbeem àjjana mu andi ab dog ci jullig bëccëgug dibéer abu hurayra radiallahu taala anhu nee yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama nee na ku julli bisub dibéer ñeenti rakka rakka bu ci nekk mu jàng ca fatiha ak amana rasulu benn yoon sunu boroom dana ko bindal limum nasaraan yi góor ak jigéen ci aw yiw dana ko jox ca àjjana ci raka bu nekk tuyaa bay ab yonente bindal ko tuyaa bay ak xaj ak xumra bindal ko ci rakka bu nekk junniy julli jox ko ci àjjana ci xaraf wu nekk ab dëkk bu ñu defare misk ba tey sayduna aliyu karamallahu wajhahu jële na ci yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama muy dee leen wéetal yàlla subhanahu ci bëri li ngeen di julli ci bisub dibéer ndax sunu borom kenn la amul ku ko ñaareel ku julli ci bisub dibéer ginnaaw tisbaar ñeenti rakka ginnaaw sunna si rakka bu njëkk bi mu jàng ca fatiha benn yoon ak suratul sajdati bu ñaareel ba fatiha benn yoon ak suratul mulk bu taayaa ba sëlmal julliwaat yeneen ñaari rakka bu ci nekk mu jàng ci fatiha benn yoon ak suratul jumaati bu noppee lu mu ñaan sunu boroom dana ko ko defal te dana ko setal ci ak nasaraan mu ñëw ci ab dog ci ngëneelu julli guddi altene ku ñuy wax anasum nu malik nee na bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi ku julli ci guddik altene ñeenti rakka bu njëkk bi mu jàng ci fatiha benn yoon ak sootul lexlaa si fukki yoon bu ñaareel mu jàng ci fatiha benn yoon ak sootul ixlaas ñaar fukki yoon bu ñetteel bi mu jàng ci fatiha benn yoon ak sootul ixlaas fanweer yoon bu ñeenteel bi mu jàng ci fatiha benn yoon ak sootul ixlaas yi ñeent fukki yoon bu taayaa ba salmal jàngal ixlaas yi juróom ñaar fukki yoon ak juróom wax astaghfirullah li wali walidaya juróom ñaar fukki yoon ak juróom julli ci bi sallallahu taala alayhi juróom ñaar fukki yoon ak juróom lu mu ñaan sunu borom dana ko ko jox moo tax ñu koy tudde jullik xaajo ba tey abu umaama radiallahu taala anhu nee na yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa ku julli ci guddi altine ñaari rakka bu ci nekk mu jàng ci fatiha benn yoon ak suratul ixlaas yi fukki yoon ak juróom bu sëlmalee jàng ayatul kursi yi yoon ak juróom wax astaghfirullah al fukki yoon ak juróom sunu boroom dana ko bind ci ñoñ àjjana doonte ci ñoñ sawara la bokkoon te dana ko jéggal bakkaaram yi feeñ yépp te dana ko bindal ci xaraf wu nekk tuyaabay xaj ak xumra te bu faatoo ci diggante ñaari altine yi dana mel ni ku faatu ci ab xare mu ñëw ci ab dog ci ngeneelu jullik bëccëgug altine jaabir ibnu abdullah radiallahu taala anhu nee na bi sallallahu taala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama ku julli ci bisub altine waxtu yoor yoor ñaari rakka rakka bu ci nekk mu jàng ca fatiha benn yoon ayatul kursi yu benn yoon lixlaasi ak fàllaxi ak naasi lu ci nekk benn yoon bu sëlmalee wax astaxfirullah alasima fukki yoon julli ci yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbi wa sallama fukki yoon sunu boroom jéggal ko bàkkaaram yépp ba tey Anas ibnu Malik radiallahu taala anhu nee na yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbi wa sallama nee na ku julli ci bisub altine fukki rakka ak ñaar bu ci nekk mu jàng ci fatiha benn yoon ak ayatul kursi yu benn yoon bu sëlmalee jàng suratul ixlaas fukki yoon ak ñaar wax astaghfirullah alasim fukki yoon ak ñaar bu yowmal xiyaamee dana am ku woote ni ana diw doomi diw najug jël si ak fayam ci yàlla subhanahu wa taala ko defee lañu koy njëkk a jox mooy junni ko daay solal ko ndëpp ni ko demal ndëpp mbaxanam mu bi mu bu mu buur yi sol la moom ndëpp moom lañ koy solal ni ko demal ni ko demal dugg ajjana mu ànd ak lu ma téeméeri junniy malaaka ñu koy gunge malaaka mu ci nekk yore haddiye ju mu koy jox ànd ak moom ba mu wër lu mat junniy tabax yu mag yu ñu bind ci leer guy leer leri ñu ànd ak moom wër tabax yu mag yu ci leer guy leer leri ñu ñëw ci ab dog ci ngëneelu jullik guddik al talaata yonente bi sallallahu taala bi alihi wa sahbihi wa nee na ku julli ci guddik talaata fukki rakka ak ñaar rakka bu ci nekk mu jàng ci fatiha benn yoon sóoratu nasri juróomi yoon sunu boroom dana ko tabaxal ci àjjana kër goo xam ni ëpp na adduna lu mat juróom ñaar yoon ab dog ci ngëneelu ba bëccëgug talaata anas ubnu malik radiallahu taala anhu nee na yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbi wa sallama nee ku julli ci bisub talaata fukki rakka waxtu yoor yoor rakka bu ci nekk mu jàng ci fatiha benn yoon ayatul kursi benn yoon sootul ixlaas ñetti yoon deesu ko bindal bàkkaar lu mat ñaari weer ak fukki fan te diggante bi bu ci faatoo dana mel ku faatu ci ab xare te dees na ko jéggal bàkkaari juróom ñaar fukki at li ab dog la ci ngëneelu jullik guddik àllarba yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa ku julli guddik àllarba ñaar rakka rakka bu njëkk bi mu jàng ci fatiha benn yoon soorutul fallaxi fukki yoon bu ñaareel bi mu jàng ci fatiha benn yoon soorutul naasi fukki yoon lu mat juróom ñaar fukki junniy malaaka danañu wàcc ci jépp asamaan di ko bindal tuyaaba ba yawmal xiyaam li ab dog la ci ngëneelu jullig bëccëguk àllarba maha sumnu jabalin radiallahu taala anhu nee na yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama nee ku julli ci bisub àllarba waxtu yoor yoor fukki rakka ak ñaar rakka bu ci nekk mu jàng ci fatiha benn yoon ayatul kursi yu benn yoon sooratul ixlaasi ñett yoon sooratul fallaxe ñett yoon sooratul naasi ñett yoon dana am malaaka mu woote ca aras ni ko yow jaamu yàlla bi tàmbulil say jëf mbooleem la wéy ci say bàkkaar jéggal nañ lañ ko jéggal nañ la ko kenn du la mbugal ci bàmmeel te doo fa am benn xat-xat wala ak lëndam te yowmal xiyaam doo fa am benn tartar te bis boobu dees na ko yëkkati li jëfi ab yonente ab dog ci jullik ngëneelu ngëneelu jullik guddik alxamis abu hurayra radiallahu taala anhu nee yonente bi salallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi ku julli ci guddik alxamis diggante timis ak gee ñaari rakka rakka bu ci nekk mu jàng ci fatiha benn yoon kursi yi juróomi yoon lexlaas juróomi yoon fàllaxi juróomi yoon naas juróomi yoon bu sëlmalee wax astaghfirullah alazima fukki yoon ak juróom joxtu yaa baja ñaari way juróom dana mel ni matal na seeni xaq doonte da leen dog doonte da leen daa dog te sunu boroom dana ko jox la muy jox si diix ya si diix ñoo topp ci yonente yi alayhimu salaatu wasalaam dana ko jox tuyaaba jooju ak ñi faatu ci xare li ab dog la ci ngëneelu jullik bëccëgug alxamis ibnu abbas radiallahu taala anhu neena yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbi wa sallama neena ku julli ci bisu alxamis diggante tisbaar ak takkusaan ñaari rakka rakka bu njëkk bi mu jàng ci fatiha benn yoon ayatul kursi yu téeméeri yoon bu ñaareel bi mu jàng ci fatiha benn yoon suratul ixlaas yi téeméer yoon bu sëlmalee julli ci yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa yoon sunu boroom dana ko jox ci tuyaaba lu toll ni weeru rajab ak chamban ak ramadan te mel ni ku xaj te dana ko bindal ci tuyaaba limub ku gëm yàlla subhanahu wa taala te wakkirlu ci moom li ab dog la ci ngëneelu jullik guddik ajjuma asanoosi radiallahu taala anu nee guddik ajjuma diggante timis ak gee ku julli ñaari rakka rakka bu njëkk mu jàng faatiha benn yoon ak suratul silzaali fukki yoon ak juróom des na ko fegal mbugalum bàmmeel jaabirum nu abdillahi radiallahu taala anhuma nee na yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa ku julli guddik ajjuma diggante timis ak gee fukki rakka ak ñaar rakka bu ci nekk mu jàng ci fatiha benn yoon ak suratul ixlaasi fukki yoon mel na ni ku jaamu yàlla subhanahu wa fukki at ak ñaar di yendoo woor di fanaane julli annas ubnu malik radiallahu taala anhu nee na yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa nee na ku julli guddik ajjuma ku julli guddik ajjuma julli gee ci mbooloo bu sëlmalee julli ñaari rakkay sunna teg ca fukki rakka rak bu ci nekk mu jàng ci fatiha benn yoon ak suratul ixlaasi ak fàllaxi ak naasi lu ci nekk benn yoon bu noppee wittar ci ñetti rakka daldi tëdd ci wetu ndey jooram kanamam jëm penku mel na ni ku dundal guddig laylatul xadr yonente bi taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama nee lu ngeen di julli ci man ci guddik ajjuma akuk bëccëgam ab dog ci ngëneelu jullik bëccëguk ajjuma sayyiduna ali karramallahu wajhahu nee na yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa ku julli ci yoor yoorub ajjuma ginnaaw bu jàppee njàpp mu mat mu julli ñaari rakka ngir gëm yàlla subhanahu wa taala ak sàkku tuyaabaam sunu boroom dana ko bindal ñaari téeméeri yiw faral ko ñaari téeméeri ñaawtiif ku ci julli ñeenti rakka sunu boroom yëkkatil ko ca àjjana ñeenti téeméeri daraja ku ci julli juróom ñetti rakka sunu boroom ko ca àjjana juróom fukki rakka ak ñaar sunu boroom bindal ko junni yiw ak ñaari téeméer faral ko junni ñaawteef ak ñaari téeméer yëkkatil ko ca ajjana junniy daraja ak ñaari téeméer abu hurayra radiallahu taala anhu nee na bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ku julli suba ci mbooloo bisub ajjuma toog fa di tudd yàlla subhanahu wa taala ba bi génn am na juróom ñaar fukki daraja ca ajjana képp ku jullik ajjuma ci am na juróom fukki daraja ci ajjana ku julli takkusaani ajjuma ci mbooloo mel na ni goreel na lu mat juróom ñetti jaam ci doomi ismail alayhi salaam ku julli timisi ajjuma ci mbooloo mel na ni ku xaj xaj gu nangu humra humra gu ñu nangu ibnu abbas radiallahu taala anhuma nee na yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama nee ku julli ci bisub ajjuma diggante tisbaar ak takkusaan ñaari rakka bu njëkk bi mu jàng ci fatiha benn yoon ayatul kursi benn yoon suratul fallaxi ñaar fukki yoon ak juróom rakka bu ñaareel bi mu jàng ci fatiha benn yoon suratul ixlaasi benn yoon suratul fallaxi ñaar fukki yoon bu sëlmalee wax laa hawla wala quwwata illa billahi al juróom fukki yoon bala moo génn adduna dana géntu sunu boroom subhanahu wa wala mu gis barabam ca ajjana wala kaneen gisal ko ko am na sàmmkatub xarab bu mas ñëw ci yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi ni ko nun danoo nekk ci àll bi sori madina lool du nu mën dikk ajjuma gu nekk xamal ma loo xam ni bu ma delloo danaa ko mën a wax samay nit ci mbirum ajjuma yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ni ko saa su bisub ajjuma dikkee da ngay julli ñaari rakka waxtu yoor yoor rakka bu njëkk bi nga jàng ci fatiha benn yoon suratul fallaxi benn yoon rakka ñaareel bi nga jàng ci fatiha benn yoon suratu naasi benn yoon bootaaya ba sëlmal jàng ayatul kursi juróom ñaar fukki yoon fi nga toog julliwaat lu mat juróom ñetti rakka yoo xam ni ñeent yu nekk dangay ngay sëlmal bu ci nekk nga jàng ci fatiha benn yoon sóoratu nasri benn yoon sóoratu lexlaas ñaar fukki yoon ak juróom boo sëlmalee wax laa hawla wala quwwata illa billahi aliyil asim juróom ñaar fukki yoon maa ngi waat ci yàlla mi nga xam ni sama bakkan mi ngi ci loxoom képp ku julli julli gii nii ma ko waxe maa ko gàddul ajjana te bala moo jugee fa mu toog sunu boroom dana ko jéggal jéggal yitam ay wayjuram bu fekkee ay jullit lañu dana am ku woote ca xaras ni yow jaamu yàlla bi tàmbuli waatel seen jëf jéggal nañu ne la wéy ci say bàkkaar ak lu mujj julli gi bari na lool nga neel yu ñu ci wax yoo xam ni ku leen di leeral dana gudd lool ñu ñëw ci ab dog ci ngëneelu jullik guddi gaawu anas ibnu malik radiallahu taala anhu nee na bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbi wa ku julli guddi gaaw diggante timis ak gee fukki rakka ak ñaar sunu boroom dana ko tabaxar kër gu rëy ci àjjana te mal na ni ko sarax jullit yépp te set na ci ak yahoot te sunu boroom dana ko gàddul ak njéggal su defee sëriñ bi radiallahu taala anhu waxul saar yi ñuy jàng ci rakkaay yi wallahu alam mu ñëw ci ab dog ci ngëneelu jullik bëccëgu gaawu abu hurayra radiallahu taala anhu nee na bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa ku julli ci bisub gaawu ñeenti rakka rakka bu ci nekk mu jàng ci fatiha benn yoon suratul kaafiroona ñetti yoon bu sëlmalee jàng ayatul kursi yu benn yoon sunu boroom dana ko bindal ci xaraf wu nekk ak xaj ak xumra yëkkatil ko ci xaraf wu nekk tuyaa bay jaamuk am at moo xam ni da koy yendoo woor di ko fanaanee julli te dana ko jox ci xaraf wu nekk tuyaa bay ku dee ci xare te bu ëllëgee caroon xaras lay nekk ànd ak yonente yi ak ñi dee ci xare alayhimu salaatu wassalaam gaalu kóolute foofu la ma jële ko ci runyatu bu cheikh abdul qadir al jaylaaniyu radiallahu taala anhu wa jamihil awliya'i yal na ko yàlla subhanahu wa taala fay aw yiw te faynu ni mu dindee ci ñun bidaa ak lor maa ngi ñaan sunu boroom nangul ma samay jëf ci darajey yonante bi sallallahu taala alayhi wa moom mi mel ni ak ci ak tey merloo noon yi tey jubal ñépp tey sori la xalkane ya ko sunu boroom di dolli tedd nga li feeg boroom xel yi ñi ngi dundal sunnaam di rey bi day moom ak i ñoñam ak i saxaabaam yi nga xam ni dañoo maanu woon lool te daan téye seeni làmmiñ ci ay neen maa ngi wax loo xam ni dama koy wax ngir xemmem lu téere bi ci képp ku amuk dégg li may wax moo di képp ku ragal a tabbi sawara yéegal ci gaalu kóolute képp ku sellal yëg ci danga am li nga bëgg da ngeen di sellal ànd ak teewlu ak ragal yàlla subhanahu wa ak sàkku tuyaabaam ndax al jaylaani radiyallahu taala anhu moo ko jële ci maamam mu jële ko ci yàlla subhanahu wa taala na ko yàlla def mu mel ni turwi ci képp ko war war mooy yéeg ci darajay yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi ak darajay cheikh abdul xaadir jaylaaniyu radiallahu taala anhu mi ngi ci xatu juróom-ñaar fukk ak ñeent ci diwaanu majma nuurayni wallahu alam